tey jii maa ngi ci primature ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko ñuy def li nga xam ne mooy passation de service def nañ ko dans la sobriété def nañ ko sans folklore ndax lu ci gën a am solo mooy di dañu war a jubli immédiatement ci liggéey bi di ko féliciter ndax président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko tàbb pour mu nekk njiitu gouvernement Sénégal liggéey bu am solo la te xam naa ne dina ko def niñ ko ko santé te ñaan lañ ci am mooy di yàlla dimbale ko assister ko pour mu jël décision dongal yi nga xam ne dina tax Sénégal gën a jëm kanam di féliciter le président Bassirou Diomaye Faye ndax askan bi moo ko fal ci ay élections yi nga xam ne élection apaisée la maanaam dañ ko def amul benn coow preuve bi ñëpp ci d'accord ñi nga xam ne ay candidats lañu woon te ñi nga xam ne tamit eh, dañuy participer ci liggéey bi ci élection bi ba ñu am résultat bi dañu war a am mbégte bu rëy pour suñu démocratie ndax dafa wono ne que démocratie bi dafa am ay fondement yu dëgër ci fukki at ak ñeent am nañu ñetti alternance en 2000 2012 2024 wone na que démocratie dafa sàq fi wone na tamit que le peuple sénégalais dafa am maturité peuple bi nga xam ne askan bi nga xam ne mooy fal mooy foli te def nañ ko le 24 février 24 euh, mars te choix bi ci président Bassirou Diomaye Faye le tombé maa ngi bëgg euh, remercier le président de la République le président Macky Sall mi nga xam ne moom moo tab comme ministre jox ma ay ministère régalien durant période bi nga xam ne maa ngi ci gouvernement bi ba nommé ma comme premier ministre du Sénégal di remercier tamit ñi nga xam ne yàgg na ma jàppale ci liggéey bi sama soxna samay doom samay xarit samay collaborateurs le peuple sénégalais en entier ndax soutenir nañ ma mais ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci région de Tambacounda yàgg ma soutenir ci liggéey bi lu des mooy di ñu ñaan pour les nouvelles autorités premier ministre moo nekk sama wet yàlla yombaloon ko liggéey bi mu def ko ni ko peuple sénégalais bëgg pour ñu gën a dem ci li nga xam ne mooy le développement de notre pays

crois qu'on aujourd'hui on est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour euh, ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de service irréprochable puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il a été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et euh, en profitons pour euh, dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les, les fêtes de Corité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Donc ci gàttal ci wolof ngi sant ñëpp wax ni dañ fay teew tey ci li nga xam ne aadala ci nguur gi ndax nguur moom mooy loo xam ne dafay sax nit ñi dañuy romb di dem mais nguur gi moom day sax ba faw saa su soppi ku amee rek lu mel ni day am mooy ñi fi newoon yor ay ndombal tànk war nañoo jébbal lenge gi ñi nga xam ne ñoo yegg si ci cadre boobu lañ ko defee semaine passée diggante ñaari président de la république yi ñu def ko ci anam bu gën a rafet tey ñu def ko ci diggante ñaari élimaan jëwriñ yi moom monsieur Sidiki Kaba nga xam ne moom moo ne woon premier ministre ba tey ji ak ñun ñi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye daf ñoo tànn pour ñu wutu ko ci di ko gërëm nag di ko jaajëfal ci nit ñu dalalee tey moom ak ñi mu àndal yépp def ko ci anam bu gën a rafet ak ni ñu doxalee passation bi ci document yi nga xam ne defar nañ koy jébbal ñu ko may ñu ñu gis liggéey bi nu mu tëree di ko féliciter tamit moom ci taxawaayam ndax defe naa gën saa gàtt ay a ngi nii mu yor ay ndombal tànk jaar ci département ministériel yu bëree bëri te dégguñu ko fi ci lu dul liggéey gu rafet ak euh, nekk au service njëriñu réewam di ko ñaanal yàlla continuer di ko xàllal yoon ba fépp mu jublu rek mun faa def li mu doon def di ko félicité am équipe am yëpp li ñu wax ci moom it di ko wax ci euh, euh, le ministre secrétaire d'État muy monsieur Seydou Guèye xam ne teewe na passation bi euh, war a yeggali moom it ak ci koy wutu di rafetlu vraiment niñ ko doxalee tey di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum